yeneen doomu Sénégal ca bitim réew ndem sax euh, am na nationalité ca Amérique tey jii am le faak yoon Cheikh Tidiane Gadio en tant que jiitu Horizon Sans Frontières sa sa xalaat ci dossier bi ci wàllu yoon. waaw dossier Cheikh Tidiane Gadio moom ñun du ñu def lu dul soutenir ko parce que Cheikh Tidiane Gadio doomu sénégalais la bu am ay jafe-jafe bitim réew alors euh, ñun nous avons une position de principe là-dessus doomu sénégalais fu mu mën nekk ci àddina su amee ay tolof tolof dañ ko war a taxaw. loolu loolu loolu mooy suñu rôle ñun loolu mooy rôle aussi état ñu ko ci ñaax état euh, ñun nag pour le moment du ñu wax lu dul présomption d'innocence parce que mbir mi soo xoolee am na yu bëri yu ci làqu en attendant que la justice mu def liggéeyam parce que xam nga le cas euh, Cheikh Tidiane Gadio li ko indi mooy problème mu États-Unis ak Tchad loolu lu ñu suli génn ci yeneen mhm. mais damay rappeler ni fan yële passé euh, le gouvernement américain dafa yónnee ndaw au Tchad pour mu jox ko l'exclusivité euh, de l'exploitation du ñoo ñu bañ ñu xëy suba teel boole même Tchad ci dëkk yi nga xam ne warul dugg États-Unis sur le décret anti boole ci joole sulli le cas bi nga xam ni tey moom la ñu bëgg a téye Cheikh Tidiane Gadio mais je rappelle aussi que Cheikh Tidiane Gadio dafa manifester woon son soutien a Hillary Clinton lors des élections présidentielles yooyu yëpp tey. tax na ñun suñu xel tey ci parce que boo xoolee États-Unis affaire doole wàllu yoon amee ñàkkut ñu war a mën a xalaat yeneen yu fiy jaar. waaw mais justement jaay doole am na fi parce que ñooñu di ñooñu di di jiiñaate ñoo gën a tax ñëpp. ñoom ils sont impliqués partout à travers le monde seulement États-Unis dafa nekk dëkk bu am doole rek ñu taxaw di daf leen neex loolu aussi may ñaax les états africains dont le Sénégal ñu taxaw Cheikh Tidiane Gadio Cheikh Tidiane Gadio doomu Afrique doomu Sénégal dañ ko a taxaw ci difficulté yooyu ba mu ñibbisi parce que ñu koy jiin ñoo gën a tax Euh, ñi koy ji ñoo gën a tax mais comme jamono ji ñoo yor doole ji tamit euh, mbir yi du yomb. waaw mbiri du yomb loolu moo tax aussi nous interpellons les Nations Unies parce que jaay doole bi euh, dafa bëri ah, ci àddina bi pour des intérêts géopolitiques ku nekk da ngay jaay doole. fu neex ko ëpp doole sa morom donc ba tax na tey états euh, Nations Unies moo war a jóg wala fulla pour yi jeex ci àddina bi. Nations Unies nag fi ñu koy xaar bari na jamono ji sax ba ci la nga xamante ni euh, xew na ci Libye bu ñu ñëwaatee ci mbirum euh, tukkikat yi la laataa ñoo taxaw sax ci Libye seen situation yéen ñi koy suivre de façon générale est-ce qu'entre-temps am na ay amélioration ci wàllu respecter seen ay droit wala dañuy gën di dellu ginnaaw ci ci boor boobu. non amul benn amul benn taxawaay amul benn respecté boo xoolee tey. Euh, damay wax ni sax dignité être humain lañu la ñu bafoué dañuy jalgati jalgati xam nga doomu aadama daf fort euh, ñun nag euh, tukkikat yi ñoo gën a sonn cay ci contexte bi ñu nekk tey parce que dañu nekk dans un contexte géopolitique boo xam ni miné par la menace terroriste les amalgames islam migration islam terrorisme tey soo xoolee fonds de commerce yëpp les les les partis d'extrême droite les ratés de la mondialisation leur fonds de commerce c'est l'islam et la migration tey ñooñu la ñuy jiiñ li nekk islam migration mooy la mauvaise herbe bi nga xam ne dañ ko war a daggati. Mhm. ba nga xam ni tey je crois que ñun li ñu gën a soxla en ce contexte là mooy la protection amul benn protection il y a un vide juridique dëkk bu nekk dangay def lu neex wax nga ko sànq. cas Sénégal yi nga évoqué wax nga ko ak faneen ak faneen yooyu yëpp tey dafa war a xool dafa war a tax ñu xoolaat mbir yi teg des lois beaucoup plus universelles pour mën a protéger. mais lan moo waroon am ba xëy na tey jii nga war a mën a jóge fenn tukki nekk fa à l'aise xam ne fii euh, boo wàccul yoon dara du la ci fekk ñu bañ a dund yenn situation yi est anam yi ñuy tukkee souvent di ko teg moom moo ko indi wala lan moo tax tey jii muy gën di métti ci kii bëgg. waaw anam yi waaw anam yi mu ngi discours euh, populiste ak yeneen ak yeneen ba nga xam ni li manqué tey mooy l'échec politique intégration intégration mooy lëkkaloo ak yaatal bi nga xam ni war nañ ko yaatal gan xam nga dañu nekk dans un contexte mondial de mobilité croissante ñëppay tukki. Mhm. dañu wax ni huit cent cinquante millions de personnes franchissent chaque année une frontière tukki moo yore àddina dama wax ni moom moo nekk c'est l'épicentre de la géopolitique mondiale kon tey suy demee ni amee euh, dëkk lëkkaloo metti war nañu xoolaat renforcer les processus d'intégration il y a le volet culturel le volet euh, éducatif bi nga xam ni tey moo manqué au sein des populations pour wax ni tukkate yokkale ci doomu adama mais yaay ngi naan 850 millions de personnes gars yi gën a bëgg a dem mais fi ñu jëm tam gën a bëgg a tëju tamit. waaw waaw fi ñu dem parce que menacé wàllu xëy ci wàllu leneen ba tax na. absolument euh, solution bi ñenn ñi di kii ku nekk xool toog développé Afrique ñeneen ñi toog seen dëkk ñu développé ko euh, est que dina mën a sotti ci ci gis-gis woowu. waaw dina mën sotti parce que tukki d'abord c'est un droit humain kenn mënu ko téye droit la boo xam ni kenn mënu mais euh, da nga wax leen surtout le tey d'accord ma sax ci tukki bi xam nga doo mën a téye nit ki soo bëgg a nit ki da teg des mécanismes d'insertion socio-économique yoo xam ne daf koy téye man je pour que ñu xoolaat des relectures de la perspective en Afrique parce que am ñu lépp parce que li am tey nga delloo ci tey ci Libye gàcce la tey war na tax Afrique ñu fippu ñu liggéey parce que dëkk yi nga xam ne tey ñu si bëri ñoo ñuy accueilli tey boo xoolee il y a ans dañu nekkoon des terres d'émigration ñoom dañu liggéey le rattrapage su loolu amee nag je crois que suñu liggéeyee euh, tey yu bëri du wàññi du du dañ mais au mois dinañ ko réduire à des proportions tolérables parce que tey jii quelle est la cause c'est la pauvreté quelle est la cause de la migration dëkk bu mel ni Sénégal euh, migration dafa dem xam ne dafa nekk une pathologie ñëpp bëgg tukki toutes les théories se vérifient au Sénégal kon dëkk bu mel ni Sénégal war nañu xoolaat ay matuwaay tegaat d'autres paradigmes. mais xool euh, Sénégal ak yeneen est-ce que mënuñu wax sax échec ci wàllu woote seen parce que bu ñu demee bay wax euh, wàllu ko njaam ci Libye ñu dellu quand même des siècles en arrière ça pose problème. ci dirigeants yi fi nekk actuellement. c'est un échec collectif des dirigeants africains li ñoom ñoo ci am une grande part de responsabilité parce que tey ay doomu Afrique mooy rey ay doomam à travers euh, li am li am tey ba ñu leen jàpp di leen jënd njaay loolu je crois que wax naa ko léegi waroon na fax tey Afrique ñu xoolaat tegaat beneen tëralin pour mën a saafara lii parce que soo demee ba nga xam ni cette force vive bi nga xam ni tey ñoo war a con ñoo continent bi ñuy daw foog ni Europe mooy solution alors que Europe du benn solution mirage la ba pare ñu daw ba jàpp leen jàpp leen njaay di leen jënd di leen jaay je crois que loolu échec collectif la pour les dirigeants africains ñu war a xoolaat seen bopp tey Afrique dañu war a xoolaat parce que il doit avoir un débat de fond nan la ñuy canaliser cette jeunesse la en mal de perspective boo xam ni tey li leen ko teg c'est l'absence d'initiative stratégique des dirigeants africains ba tax ni tey seen i doom di xaru ci géej gi je crois que tey dafa war a am tey dafa war a am une prise de conscience au niveau africain ba nga xam ni ci wàllu ñu ngi joxe ñoom Libye euh, Libye tam di setal deram ci euh, wàllu wow wàllu ko njaam googu du du kon ñoom ñoo koy jëf en tant que tel mais bi coow li jógee euh, Boubacar dafa mel ni xëy na njiit Afrique yi ñu ngi koy door a yëg ku nekk di naqarloo di di di di ko manifester alors que ça ne date pas d'aujourd'hui. ça ne seen télévision bi ñun bi ñëwee Sénégal ba léegi foog naa ñaata yoon ngeen ñu fi invité ñuy poser les problématiques yi am Libye wax na leen ko. les les les les les les les archives sont là tey jii effectivement dañu ils sont en train de biaiser le débat euh, boo xoolee on oriente affaire bi ci affaire esclavagisme mais quelle est la cause de la cause lan moo indi cette situation là c'est la mauvaise c'est la gestion scandaleuse du triptyque immigration paix et sécurité. Mhm. bi nga xam ni tey moom moo indi une économie souterraine et criminelle boo xam ni moo jur le trafic d'êtres humains. le trafic d'organes waxaguñ ko ñu ngi koy wax ces corps là fu muy dugg le trafic le l'esclavagisme le trafic de drogue et trafic d'armes cette économie criminelle là jur na plus de dix milliards d'euros en 2016 xaalis boobu kañ lay profiter des lobbies des lobbies qui influencent les dirigeants politiques moo tax kenn du wax yooyu yëpp tey dafa war a nekk lu ñuy leeral Afrique ni patt pataaral mais ni ñu yëgul di condamner bay convoquer sax ay représentants diplomatiques libi pour biaiser le débat je crois que tey on profite de ce jour là pour rappeler à la responsabilité et au sens de la dignité humaine xam nga tey euh, dañu toroxal doomu aadama Afrique na jël ay matuwaay ils sont responsables de tout ce qui se passe et erreur bi nga xam ni tey moom la ñu éviter. Mhm. Euh, dégg naa fan yëpp ñu ngi ñu ngi préparer naan est-ce que il y a lieu mu am une intervention militaire damay wax déedéet ça serait euh, sombrer euh, euh, c'est-à-dire que dugal le continent dans une incertitude totale parce que on ne règle pas une crise migratoire par des armes migration fait sociale la. kon du guerre bi mooy saafara. mais guerre bi moom mooy lan euh, tey prétexte la bu ñuy jël parce que tey il faut ñu rappeler ni il faut xeex am ci àddina bi. parce que dafa am ñoo xam ni xeex leen di dundal. dafa am ñoo xam ne tey su xeex amul duñ jaay seen arme yooyu yëpp tey mu ngi fi Afrique moo war a yeewu on n'a pas besoin de guerre Afrique moo war a jël ay matuwaayam baa ngi gis ay sommet G5 nga xam ni cinéma la. Mm-hmm. ñuy ndax africains yi di laaj xaalis mais pourquoi l'Union européenne dégagé wul xaalis. ci ci beneen wàll euh, tey jii monsieur Seye euh, xëy na jamono jooju ñuy jaar ci yoon yu jaar euh, yoon yu dëng yi ba xëy na mbir moomu ñu koy dund ci Libye mais am na ñoo xamante ne tukki nañu ci lu normal pendant plusieurs années ni leen di woowee fii ay moodu moodu wala gis nga ni tam euh, foofu jafe-jafe yi bari na seen wàllu sécurité surtout seen wàllu ëllëg ba ñu mën a ñibbi fii parce que yenn saa itam euh, niñ koy waxee Europe la woon nekkatu fa tey ji. voilà la woon nekkatu fa. Europe la woon nekk fu moo tax wax la il faut que ñu changer les perspectives parce que am na ñoo xam ne tey ñu ngi ci ay difficulté bëgg ñibbi soo nee cëpp ci mbedd Europe yi di ko gis ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp tey dañ ko war a xoolaat ba pare aussi la nekkoon nekkatu fa tey jii boo xoolee feeñ na sax dans les transferts de fonds. li ñu ñu leen gën a jàppale parce que milliards yi ñu ngi koy dugal chaque fii ci réew mi. quand mais ñoom ñooy stratégique dans la gestion de ces, de ces flux-là. Les Sénégalais de l'extérieur, pour camper le débat suñu ñoom tey li ñu gën a soxla mooy la protection contexte bi ñu nekk tey nga xam ni tey soo xefee ñu jàppale soo xefee ñu jiñ la gis nga l'arrivée de Donald Trump mm-hmm. démb gis nga Emmanuel Macron teg na ay loi pour expulser pour dissuader les flux migratoires yooyu yëpp nag ñu ciy génne une diplomatie à la hauteur des enjeux lañ ciy génne une véritable politique migratoire bi nga xam ni comme soubassement la protection de ces Sénégalais de l'extérieur suñ ko organiser yokk lay nekk ci pour Sénégal yokk modèle aussi lay nekk pour l'Afrique kon njiit yi foofu tam am liggéey bu am solo gërëm la bu baax monsieur Seye ci teewaay bi waxtaan wi am na solo waaye waxtu mi ngi ñuy dab fàttali ni bisub tey jii moom la ñu jagleel euh, migrants yi ñu ci doon euh, waxtaan ci ñi nga xamante ne xëy ñu ngi tukki ci yenn anam yi waaye it ñi jaar ci yoon terewul ñuy dund ay jafe-jafe yi. jërëjëf Ngoné.